sëriñ Abdoul Aziz Diaw di marabu tradipraticien moo leen di may seen vidéo yi GCB ay numéro mi ngi doon di affiché ci baaru écran bi. gannaaw ba 9h jotee ba teg 32 minutes fële ca Thiès Thiaye benn dëkk ñaari gaar ak li ko wër asalaamaaleykum. jaajëfal nañ leen bu baax a baax ci ànd geeg bàyyi xel geeg leeru jamono seen émission bu mag bi la dellu si ne muy jommet jommet ngeen di ko am altine ba aljuma 9h30 jàpp 10 Euh, ñu ngi jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo nekk ci région yi Mamadou Makhtar Sarr moo leen di euh, jottalil suñu nuyoo euh, jaar ci groupe WhatsApp yi nga xam ne ñoom it fu ñu commencé ñoom it ñu commencé synchronisation gi ñoom itam ci enregistrement yeeg ñi ne ñoo nekk ci groupe taxaw ci turu Walfadjri tey enregistré tey ñu nekk fële ca TV sa Baye Assane Messi rek Mouhamed Silla ak Abdoulahat Ndoy ak Ahmadou Bamba Dieng Bamba fépp moom mooy séddale ñu ne foofu la ci groupe yi taxaw ci turu UGCB Alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu sëriñ sii di moom sëriñ Abdou Lahad Mbàkke ca Touba xaritu sëriñ daara yi di buur ci sëriñ Xaadim Fall maa ngi lay nuyooti eh, sooy bi ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziyaar di la ñaanal jàmm eh, di am mbégte ak kontante di dem ba Touba Mbàkke di nuyu xalif général des mourides sëriñ Muntaxa waaye di nuyu sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbàkke di ko ñaanal Mbàkke mu yàgg fi lool te ànd ak wér bi ko ziyaar bu wér a wér di nuyu sëriñ Xaadim Fall moomu nga xam ne ma nga ca kër ga sëriñ Xaadim ñu ngi lay nuyu di la ziyaar sa <laughs> di nuyu bu baax nag eh, ki nga xamante ni kii eh, mooy sëriñ Abdou Karim Mbàkke borom Makarim wax laa di nuyu kilifa diine yi yeewoo ci biir réew mi yépp fu ñu mën a ne mm-hmm. lew nañu seen Medina Baye Tiwaawan Njaasaan Laayeen Cenaba mm-hmm. di nuyu waa àndu di nuyu it sunu mbokku jàngu bi di leen ziar waaw di leen wax kare mu jàmm di nuyu bu baax xalisa laa kull kuy sàngoo kwet ma jigéen job waaye di nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni moom la ñuy wax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu ngi koy nuyu mais di nuyu tamit bu baax ki nga xamante ni moom la ñu naan Serigne Medoune Sey kookoy borom tawféex di ko nuyu di nuyu Mama Courant mi ngi ñu doon signalé sànq rajo bi. Mama Courant waaw ñu ngi koy nuyu di ko ziar mi ngi ñu doon signalé dañu rajo bi. mi ngi am suñu dañuy teewlu bu baax. Euh, auditeur Walfadjri la bëgg Walfadjri bu baax a baax. Mhm. Mama Courant ñu koy nuyu di ko ziar. salaamaaleykum euh, maa ngi leen di ziar di la fay alaaji mm. di nuyu son yi bu di mm. nuyu mboolem auditeurs yi teewlu 99 point 0 dem ba diwaanu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar nuyu leen ziar leen euh, di nuyuwaat euh, sunu sëriñ bi sëriñ Sidi di sàkk si moom i ñaan di nuyu Cheikh Bara ak sëriñ Medoune Seye comme ni nga ko waxee di nuyu nag képp koo xamante ne nii rek yaa ngi ñuy suivre ci live Facebook bi suñu xarit yi nekk foofu ñu ngi leen di ziar bu baax baax baax Souhaibou Diop waaw mi ngi noonu kon euh, live Facebook bi ma jigéen wax na ko bu ngeen demee rek ci euh, Facebook bi ngeen def Walf FM 99 point 0 di ngeen mën a euh, gis foofu Alaaji Sanjoogu Mbeng ak ma jigéen Jóob ci toogaay bu yaañi bi ñu toog bu ko defee ngeen daal def seen ay commentaire ma jigéen dana ko jàllale après rumeur bi mi ngi noonu kon nuyu nga xam nag ñoo ne ci prison yi ci Sénégal yi yëpp bàyyiwuñu benn prison ñaan état bi mu bàyyi leen xel bu baax a baax suñ mbokk yi ne ci yi tamit duñu leen fàtte ñu jël nuyoo bi teg ko ci suñu doom baay Aïssa Diop mu daal di séddale moom moo nekk fële ca Dantec Euh, tey jëlee ma jigéen ñamale gi xanaa ñu baras si ko rek raaj ci tuuti rek bu ko defee daal di koy euh, gaawal président Sall ginnaaw bi ñu ko laajee ci RFI nee na mbirum Ousmane Sonko daal euh, yëgu ko woon te xam naa ni daal na mu daf mel ni yoonam ngaññam nekku ca ni ko alaaji di faral di waxee nee na yëgu ko mm. beneen bi ci des itamit tey jile la ñuy commencé li nga xam ne mooy ñàkk yi wàllum pikir yooyu nga xam daal indi nañ ko ci réew mi ngir fànq feebar bi nga xam ne nee nañu dafa fas yéene law ci réew meeg wala ci àddina si te ñàkk yi mën nañu cee musal Guy Marius ak Assane Diouf defe naa teg nañu leen loxo Assane Diouf moom démb euh, ci guddi lañ ko teg loxo lan mooy cause bi nee nañu daf doon euh, waajal li nga xam daal moom mooy ay yëngu-yëngu jëmale ko ci biir réew mi ànd ko ak Guy Marius Sagna ak Clédor Sène lool daal muy loo xam ne tey jile mooy ñamale gi incha allah. waaw sooy bu euh, président Sall de wax dëgg yàlla war na mën wax si mbir mi. mais euh, fi bi mu dem ba di fa waxee pourtant à chaque fois suñ ko laajee fii du nangu wax mais su taxawee tey jii ne yoonam newu ci alors que 31 euh, décembre dégg nañ mu wax ne carrément am na ñoo xamante ne nii boo leen laalee ci euh, Sénégal dëkk bi tàkk kon donc dafay nekk ñaari wax yoo xamante ne nii vraiment sénégalais yi mm. parfois dañuy taxaw di ci am taxaw seetlu di laaj le pourquoi muy wax ne yoonam nekku ci parce que puisque moom moo chef euh, ministre bi yor wàllu justice bi. Mhm. procureur tamit mm, pareillement moom moo leen nekk nit koo xamante ne ni moom mooy exécuté ñoom ñooy topp ndigal yi mais de toute façon euh, ñoom i neen la nañ ko régler mbirum ñàkk yi nag moom c'est normal que euh, jamono ji ñu toll ñu indi ñu ñàkk yi ñu mën a vacciner wu li ma si waxoon la fois passée rek laa si waxaat son bu parce que tamit communication bi waa mm. ba tax nit ñi am fit moytu wala ñemee vaccination yi ñoom rek ñoom ñoo ko mën a def puisque bi muy bi ñu doog a wax waxu ñàkk yi sénégalais yi ku nekk indi nga sàpp xalaat ak interprétation bi nga xamante ne nii def nga ko ci kon donc de toute façon rek moom ministre bi ak ñi nga xamante ne nii ñoo yore wàllum santé bi nañu wax ak askan wi rek dalal seen xel euh, bu ko defee euh, dinañ mën a ñàkk comme il faut mm. euh, mbirum ñoom Guy Marius ak Assane Diouf ak Clédor mm. dégg naa jàpp nañ leen ci ay audio yoo xamante ne nii. dafa kii la door jàppaguñ ko. jàpp nañ ko non jàppaguñ ko. jàpp nañ ko son bu loolu la ñu wax léegi. si xanaa ci la. si tey si suba ay sept heures moyen lañ ko yóbbu. mais il paraît que si xaaju guddi bi la euh, deux pick-up yoo xamante ne nii ay euh, waa yoon lañ. ñu ngi hmm. fa woon mais si suba teel bi lañ ko yóbbu. Euh, ci ay mbir yoo xamante ne ni dañuy xeex euh, ndax euh, seen peut-être seen àndandoo boobu di Ousmane Sonko la ñu teg ay affaires yoo xamante ne ni ñoom nee nañ duñ ko nangu parce que tamit toll nañ foo xamante ne ni dafa mel nii démocratie bi si mim réew. Mm. dañ ko bëgg a naxasa nasaxal maa ngi dégg tout à am kuy wax ne pourtant Alioune Dembourou saw fii la wax ne ku xañ président Sall troisième mandat am nañu génne jaas yi pour loolu la. moo ko gën a rey loolu kay ci trouble à l'ordre l'ordre public la bokk et pourtant moo tax voilà et pourtant waxuñu leen dara léegi ñii ni taxaw dañuy xeexal seen benn àndandoo ñu ni leen du ngeen ko fi defee alors léegi lan lañ bëgg dañu bëgg ba dem ba benn moment boo xamante ne nii Sénégal day nekk euh, réew moo xamante ne nii démocratie moo fi am mais du am opposition loolu nag tamit nag euh, sony bu loolu kay nekkatul démocratie parce que Sénégal ñii dañuy ànd aw nii ñii aw na le du chaque jour benn wax bi rek mooy mën a dem wala ñëpp ñu bokkandoo benn gis-gis loolu boo ko bëggee imposer si réew boo xamante ne nii ñu ni démocratie moo fiy daw dafay daal di métti sony bu waaw <coughs> fan lañ démarré tey. ci RFI <laughs> information. président mu ni yëgu ko. mu ne. mu ni yëgu nee na yoonam nekku ci quoi yoonam nekku ci la waaw. nee na mm, du compliqué wul li mu waxoon rek loolu la ah parce que amut leneen xam nga ñi defe ne waxu fi wax ju bees ah. ah loolu la loolu waxoon loolu day fedd di rek que ni kàddu yi ma wax démb. loolu la waxaat rek. muy waajan goro bi. waaw goro bi. ok loolu mooy li nga xam ne moom la waxaat. Uh-huh. waaw donc loolu moom génnewu ko ci. Ah. même pour mais mais <laughs> waaw parce que euh, bu dit yow neen parce que buñ la waxee yow la. waaw tey mën naa am ni dañuy yegg ba ci sa mm. euh, euh, sa mm-hmm. njaboot. waaw bu bu sa njaboot defee kañ daanaka yow la rek loolu la quoi parce que ki koy def ñi nga xam ne buñ ñu waxee ni Macky Sall wax ji gën na sori kii quoi pas que ni yow directement mën na nit ki sax mën na ko bañ a def mën na ko def te fekk ni peut mën nga ko bañ a yëg waaye daal njaboot gi daal lañ jàpp parce que am na ñoo xamante ni bii nee nañ say jegeñaale lañ waaw leneen li muy jëm ci vaccin yi moom defe naa tey la waroon a vacciné mais je pense que moom vacciné wu tey de Diouf Sarr defe naa mooy vacciné wu moom président moom vacciné wuñ moom tam waaw xam naa bu chinois yi dalut xelam peut-être <laughs> xam naa dafay <laughs> est-ce que du vacciné nañ ko non Diouf defe naa moom dina vacciné wu tey quoi direct ah ah xaw ma direct xaw ma moom moo loolu la ñu wax hmm. waaw léegi nag man kaawu ñoom Assane Diouf ak euh, kii Clédor ah, waaw Clédor ak Guy Mariwa waaw xalaat xalaat bi ma ci dama xam ne boobu Clédor euh, ku muus la le très intelligent. lu tax nga wax loolu pertinent non dama xam ne rek ku muus la. lu tax nga wax loolu waaw. parce que boobu jàpp daal di fii gaa yi jàpp di daaneel nañ ko est-ce que daan daaneel nañ ko. luy loolu parce que bi. waaw Clédor gën na ñor ay audio de. ay audio bi da jàpp ne audio bi euh, kii ndëgg sarax la. ah est-ce que déglu yi ndëgg sarax parce que bi. <laughs> moo tax Clédor yaakaar nga ni. moo tax ma ne jël naa sol ay gants rek. Ah, <laughs> affaire bu doy affaire. <laughs> parce que mënoo nekk ci groupe. affaire bu doy waar la quoi. nekk wax wax façon bi eh, xam nga xam daal. Hmm. day xaar ba ca rek mais en tout cas daal. Hmm. tout cas daal. Euh, hmm. Clédor ku muus la. ku muus la waaw. da xalaat wax ji daal làmb leneen. waaw xam naa ne daal nit ku yeewu la daal. amee ah, jàppoo jàppoon ne trouble à l'ordre la. waaw mais est-ce que du fi mu leen bëggoon a dugal ñoom fa lañu dugg. ah xam nga affaire yi ay stratégie la rek ah. dañu leen a sañaxal. waaw <laughs> est-ce que nekkul nii dañuy am loo xam ne moom lañ bëgg a wane daa dee def loo xamante ni bi parce que audio bi tamit coow li coow li boo ko dégloo. Euh, def ay junj la rek ah. waaw waaw amut leen loo xamante ni bii. ay junj la waaw. wax la joo xam ni wax ju leer la sax. waaw dëgg ay kii. waxoon naa kii kii xam nga yëpp ay kii dara leeru ci ah. mooy jour ji dafa jàmp. <laughs> waaw ba noppi nag nga envoyé ko ci jamono joo xam ne bi yow xam nga ni ñi ngi lay dégg ñu ngi lay bàyyi xel ñu ngi def yu ne. Clédor mm. gën na ñor loolu. Mm. da nga jàpp ni daal ay. ah non il est très intelligent donc il faut que gars yi def attention. ah mais nag allah waaye nag xam nga alaaji allah audio bi mel noonu dafa xaw a sensible. Ah, ah mais audio bi c'est codé ah. codé waaw. Mm-hmm. Ah, bu demee xëy na gars yi dañ ko décoder. Ah. <laughs> comme dañ koo codé gars yi ñu décoder ko. réew mi <laughs> am na ñoo xamante ne bii am nañu am na am na ñu yeew waaw. am na ñu yeewu waaw. waaw dëgg la de. Ah, bu fekkee ne dañu defee ne ñenn ñi rek ñoo ay ci stratégie am na ñeneen ñuy teg yeneen stratégie ah. Mhm. ah. il faut que tamit ñu xam lool mais li am solo. Mhm. mooy gis nga réew mi. Mhm. Euh, ñi ngi jëmale ñi nga xam ne ñoo ko jiite ñi ngi fi mu toll nii am na communication bi daw fi mu toll nii léegi da ngay gis nii maanaam. beneen camp bi xooluñu mais. ñi ngi taxaw taxawaay yaay jàppe dëgg ah ci réew mi. beneen kàmba. ah ki yor nguur gi taxawaay bi ñu taxaw maanaam kenn du wax kenn du kii kenn du lool kenn du saxat léegi ñi taxawaay yaay jàmme lañ jëm est-ce que du tamit ojo bi c'est pour gën a montrer ñi gëmut lenn li. waaw ñu wan leen rek. ok am na yeneen daal. waaw mais ku fi toog yaay jàmm seetu la ci moom gis na fi yaay jaar. ah waaw waaw xam naa dina ci bàyyi xel. moo ko fa jaaral de. moom moom moo ko fa jaarale <laughs> <laughs> yayaa di génn. yayaa di génn moom la njëkk a ciipatu. <laughs> voilà en daal mbir mu euh, euh, kii la quoi moo tax it. Mhm. il tuuti. am solo parce que audio bi man ba tey daal. Mhm. Mm, xam naa ni mooy loolu ah, rajo ba ñëwati na. est-ce waaw kan. kookal la <laughs> ak yar. ah ay yàlla ay yàlla waay ànd ma ànd ak yar. ah rajo ah. non non bi di rajo eh, kii bi RDV. RDV man du eh, eh, rajo du jaar bàyyil ñooñu de bàyyil FM mooy dugg duggante waaw mën naa nekk ñooñu waaye du fële bàyyil RDV <laughs> ngi koy nuyu moom Sidi Diagne ca foofule ak Fallou Sène rajo yi. non non la alaaji. la mooy sa ah. <laughs> yar. ayca <laughs> ñu ngi koy nuyu baax a baax moom alaaji Mbàkke yu fay ak euh, ñi ne foofu ñëpp la kon bu ko defee ñu daal di dem ci internet bi oh ñu dem ci internet bi te del siwaat les rumeurs du net. rumeurs du web. cay li si internet bi. les rumeurs du net. cay rumeurs du web. rumeurs du net. rumeurs du web. rumeurs du web. rumeurs du web. les rumeurs du net. ay li ci internet bi les rumeurs du net. la ilaha illallah. les rumeurs du web. mi ngi noonu rumeur di web tey jëlee nag euh, ma jigéen dafa am benn euh, audio boo xam ni euh, gars yi dañ ko doon partagé ci groupe whatsapp yi mu nekkoon loo xam ne nag laata muy jaar fii ci rajo bi am nañ leneen lu koy weddi wala lu koy gën a leeral que ni loolu dëgg la fan yi yaa ngi doon dégg ñu ni daal dañoo aaye ci estation yi jaay li nga xam ni mooy essence ci bidon loolu nag li koy leeral dafa mel ni kii nga xam ne ma nga ca tool te nekk ab rosekat daal àdduna ci. bay ak salaas yi ak betterave beeg concombre yëpp yëpp yëpp ngi taxaw ngir station yi foo dem boo yóbbu sa machine yenn sa machine yóbbu duñ la nangoo jaay essence fan lañ ko teg fan lañ ko teg machine yi mënuñu koo yóbbu di ko di di ko jëlee essence di ko jënd pour pour jëndi essence man ta nekk beneen bi tamit mooy maire yi nga xamee ne ñoom ñoo nekk fii di liggéey maire yi liggéey ñoom ñëpp kenn gontatul ngoon ki daan jaay ñeenti plan wala juróomi plan léegi benn plan sax mënu koo jaay ndax jën amul normal yàpp no amul amul normal Euh, kii euh, maire yi marché yi ñuy wàcc nit ñi cinq heures lan lañ bëgg xoolal xoolal xoolal salaat yëpp ngi nii ñuy buddi di sànni tamaate bi nga xam ne moo ngi dugganteeg salade yi tamit tamaate baa ngi yàqu lan lañ bëgg su fekkee ne da ngeen a bëgg a tay lan lañ bëgg mi ngi doon jigéen bi euh, nga xam ne daal moo ngi euh, ab rumeur la woon buy dox ci internet bi man nag bokkoon naa ci ñi ko weddi parce que jàppoon naa ne kenn ku nekk am nga sañ-sañu yor sa bidon à tout moment heure bu la neexee heure boo paanee essence nga jël sa bidon dem ci station ñu jaay la nee nañu nag dañ koo aaye woon ci réew mi ginnaaw bi ñu foogee daal ni am nañu yaakaar ne xëy na essence bi nit mën na koo jënd def ci caay-caay mm. ñii nag jële nañ ci ak loraangeel gu méttee métti ndax dafa mel ni lu bari mi ngi yàqu ci seen liggéey te mënuñoo yanu machine yóbbu ko ci sa station ya évidemment sooy mm. bu loolu tamit woon nañ ko mais xam nga rek li jot a xew la fois passée xam naa gars yi looloo tax ñu ne dootuñu nangooti jaayee essence euh, sans pour autant nga indi euh, peut-être matériel bi tax nga yow ngay jënd essence duñ ko nangu sol si ay bouteilles quoi mm-hmm. mais bon xam nga ñi tamit caay-caay ma euh, jigéen loolu génnewu ko ci voilà loolu génnewu ko essence moom fu dëgg yàlla ah, am ko jàpp naa ne gars yi moom suñu paree ngir def dara rek mhm. ñoom tous les moyens sont bons mais tamit nañu fexe ba ñi nga xamante ne nii dañuy yëngu ci wàllu mbir moomu nañ leen dimbali rek te yàlla tax mhm. bu ñu soxlaa dara war nañu mën a ràññee ne kii nii dafay liggéey moo tax ñu ñuy ñëw di jënd essence li am solo mooy gis nga ñii décision bi jël dogal bi ñu jël wax dëgg fa yàlla du dogal boo xam ne bi euh, tegu na dëggantaan cim xel estation yi ñu fi songoon nag dañ ko fàtte. ki ki nar a def caay caay kooku danga ko mën a tere bu bëggee am essence. léegi loolu danga mën nga tojlu sax yeneen station ah donc euh, te mi ngi mi ngi privé ay nit ñu liggéey. parce que li wax euh, lu leer la maanaam am na ñoo xam ne bii kii lañ yor tey jii Walfadjri gi. buñ toogoon courant coupé. nu ñuy def groupe bi. pour alimenter ko. doo dem ci station bi waruñu laa mën a jaay. vraiment doo yenu xanaa machine bi. xanaa doo yenu groupe bi jàpp ko. naa kon ñoom bas tey kon ki <laughs> groupe bi kat boo ko mënee yenu yóbbu ko ci station ba bu dee sax groupe bu ndaw am na groupe yoo xamante ni bi kenn mënu ko yenu yóbbu ci station ba donc bidon rek nga mën a jël pour def ci donc il faut que tamit ñu daa dee xam ni am na dogal yoo xamante ni bi wax dëgg fa yàlla mhm. li nga waroon a wax kay mooy parce que station moom tey jii bu station bu taxawee ne du jaay manifestant yi taxaw. Mm-hmm. ne ko jaay ñu essence. waaw nu muy def da leen di jaay wala du leen jaay. du leen jaay. yor seeni cour ne ko jaay ñu. ah <laughs> du leen jaay alaaji. dinañ ko jaay wala du leen jaay duñ ko war na jaay. <laughs> boo ko jaayit mu jaay boppam loolu kay mooy saraxal ndongo mbaa bu tibb ak dooleem. Mm-hmm. ah boo ma jaayit ma jaay sama bopp bu boobaa sax est-ce que danañ tal jënd. c'est que tamit il faut que tamit euh, daal ñuy jël dogal bi am nañu ci loro ñu bari dogal yi gën a loolu quoi tamit vraiment daal ñu xaw ko teg tuuti cim xel mhm. mais daal vraiment dañuy jël dogal yoo xamante ni bii euh, day gaañ ñenn sa salaat yow gis nga salaat salaat salaat salaat bu amatul musiba la salaat waaw mm-hmm. yow tamit wax na dëgg fiiriir lu muy jariñ ay jën yu kese. jën bu ànd ak salaat lu salaat day accompagner day orne kii ba defar ko. ndeysaan eh, moo tax kay man ma gëj a gis salade. ndeysaan eh, waaw vraiment salade dafa baax ci di jeexer ak yooyu. ndeysaan salaat l'expérience gii nga xamante ni bi yàqu na. Mm-hmm. Eh, salade googu yàqu ay reeri reer la. waaw dëgg la. dëgg gi. te parce que ñiy jaay salaat heure bi ñuy gont si heure boobu la couvre-feu bi di démarrer. Hmm. salade kenn du ko jaay yenn heure yi. waaw war a xaw a day ngoone tuuti ci la ñu mën a jaay salaat ak tamaate farce si jooju. waaw waaw laaj mbàkk moom doo ko yónnee message. RDV la. ah alaaji yónnee ko message. RDV. <laughs> ñuy gudd jiñ rek. mbàkk yónneel mbàkk yu fay message alaaj waaw sooy bu waaw ma jigéen jàlleel gars yi lu ñu wax seen message yi bëri na macha allah euh, lees lu fafaal maa ngi lay nuyu euh, kii moom nee na euh, soppe saa njoogu la Diop nee na Macky Sall lépp lépp moom daal Macky Sall lay waxal ni ay dara jaañ tamit ñu ñuy mm. suivre depuis am na benn waay boo xam ne euh, Espagne la nekk kii ah. Londres ñoom ñëpp ñoo ngi ci euh, kii bi euh, son yi bu ñu ngi mm. leen di ziar message yee bëri ba mënuñu am na benn aali tamit moom mu ngi leen di ziar bu baax a baax am na ñu leen nuyu son yi bu ñoom itam nee nañ ñi ngi rafetlu bu baax a baax El Hadj Touré Malick Ndiaye tamit ñu ngi koy nuyu. Mm-hmm. Euh, moom mi ngi ci euh, kii bi di ruube mais bon du tee ñu ngi lay nuyu bu baax Oumou Mbacké Cheikh Gueye. Euh, Abib ak Bassirou Sey bëri nañ son bu ñu ñuy suivre fii ci Facebook bi c'est vrai que message yi dañu bëri nag moo tax mënuñu liir lépp son mais ñu ngi leen di jaajëfal. bu baax a baax macha allah ñu ngi leen di gërëm ñoom ñëpp mhm. <coughs> waaw. mu mhm. ngi noonu. waaw ah, kay. dama Mbacke Faye laa doon jéem a woo. <laughs> yu Faye ci la muy sonné rek ah, xam nga li xew alaaji. <laughs> lan moo xew. ah. ah. Mbacke Faye kay macha allah moo yore piis bu mag boobu. piis ban. bu mag bi patriote. bu mag a mag bi. piis des patriotes Mbacke Faye. vocal fanaanal xew yi. na jaamam yàgg. waaw waaw léegi euh, alaaji ñu ñu def ak élément bi. élément ba ak Mbacke Faye mi. non élément bi teg ko. nga xam ne waaw baax na ma jigéen. waaw sëñ bu. jigéen de élément bii moo la mag. waaw ah, sax. Ah. ma jigéen 87. waaw loolu moom moom waaye sa cos seen yi de moo ko xoolee xam naa ne ma jigéen yow 87 fekk na nga ngay dox. déedéet. ah fekk na ma jigéen. 87 yow sa diggante yow. 87 fekk na ngay dox. Hmm, jigéen fekk sama juddu. ah. ay jigéen. léegi déglu suñu papa ji Alaaji Assane Mesere moo ko jël waaw kay jërë ngeen jëf mbokk yi nga xamante yéen a ngi bàyyi xel Walfadjri ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax rawatina émission bu mag bii di jommet saa njoogu ak maa jigéen ak bu jóob di ko amal mu amit loo xamant ni doy na sëkk jommet ñu fas yéene see waxtaan ak moom pour dégtal ko gouvernement bi waaye dégtal ko sénégalais yi nga xamante ni ñu ngi bàyyi xel réew mi góor gi ñoo ngi lay nuyu ah, maaleykum salaam baa yaa ngi maa ngi sant yàlla si émission mag bii di léegi dañ lay bàyyi nga présenté wu ah, man Mor Mbaye laa tudd doon liggéey ci benn société bu ñuy wax Agri Pêche Aziz bu nekkoon ci Bel Air armement Adrien Adrien Michel moo ko moomoon mais daf ko jaay ex maire Abidjan ñu koy wax Diogo Sonkola ñuy liggéey ak moom ba usine bi tëj hmm. ñun doon ñu liggéey quarante deux millions par jour ñu jekki-jekki déclaré faillite ñu déclaré pay ñoom fexe nañu ba yóbbu seen fonds de commerce ak seen fonds de roulement daw bàyyi ñu fi usine bi. usine bi fan la nekkoon. Bel-Air la nekkoon usine jën la. ñu ko doon bu Bel-Air la. waaw ñu ko doon wax Agripes. li fa doon liggéey ci personnel bi muy tëj nag trois cent cinq personnes lañu man maay seen porte parole. kan moo ko moomoon usine bi. usine bi Djigo Sonkala moo ko moomoon moo doon maire Abidjan Côte d'Ivoire. kon doon toon nekkutoon Sénégal dafay ñëwoon pour def. nekkuloon Sénégalais mais dafa àndoon ak ay sénégalais ñu fiy liggéey usine bi bi mu tëjee léegi ñu jël dossier bi confier ko benn syndic bu ñu wax Ablaye Diop Ablaye Diop yor dossier bi yor dossier bi ba ñu projet bi avant ñuy régler nag pour jaay matériel bi ab Ablaye Diop boobu génn àddina ñu joxaat ko beneen syndic bu ñuy wax Ablaye Dramé Ablaye Dramé boobu dem ci dem ci ñu topp ko topp topp ba bi ma fa mujjee dem ak personnel bi mu ne ñu moom usine bi sax xamul fu mu situé wu mm. ma ne ko mënuñu la jox ay caabi usine nga yor patrimoine u nit mm. nga ne xam loolu loolu fu mu situé wu loolu du wax bu yenn maanaa wax leen ñu loo xam ne mën nañ ko dégg parce que ñun ay père de famille lañu ak ay mère de famille dañoo tëj am nañ fa patrimoine port détruire na suñu patrimoine daf ko pàkku conteneur ca Bel Air ba mu koy def tàgguñu yëguñu syndic bi nee moom yëgul nee nag ñun amoon nañ fa patrimoine boo xam ne biñ ko dañ ko defoon évaluation mu nekk deux milliards quatre cent million mais loolu bu état taxawee port fay ñu suñu patrimoine boobu mën nañ ci fay nit ñi seen droit moo gën ñu toog di ñu seetaan ñu toog rek ñun ay père famille hmm. trois cent cinq personnes lañu man nag yàlla def man maay seen porte parole nit ñu doon ñaan nag gouvernement bi ci man man a mag ndimbalam nañu dimbali seet nu muy def ñun personnel bi parce que sonn nañu ñii dee nañu parce que fii ñuy wax nii cinquante quatre personnes dee nañ ci personnel boobu. toll ngeen si ñaata at. à peu près. 87 la tëjoon ba léegi. 87 la tëjoon. waaw yéen kooku bàyyi woon na fi njaboot wala ak njabootam nekkuñu Sénégal. non njabootam nekkul Sénégal. njabootam yëpp nga fële dañ fi daan ñëw rek. Côte d'Ivoire waaw ñu ngi Côte d'Ivoire ndax jéem ngeen a xam si ñoom dara si Côte d'Ivoire pour jéem leen lijjanti am du yéen ak ñoom yéen ak gouvernement bi la. non moom la mais gouvernement moo ñu war a dimbali. parce que ay sénégalais ñoo ko jiite woon président conseil d'administration bi Alioune Pala Mbaye député maire bu Tivaouane moo ko jiite woon hmm. ak yeneen sénégalais ñoo nekkoon suñu diggante mais bi nga xamee ne ñun dem nañu. di topp suñu alal ñun mënutuñu leen tax a gis. maanaam ñun dañu dañu jaay daal. yéen amoon ngeen contrat wala. non ay embauché la ñu woon du ñu ay contrat. parce que embauché dañu leen daawut fay. ti daan nañ ñu fay weer. mais usine bi dafa jekki jékki déclaré fayit bi mu déclaré fayit dafa déclaré fayit le 2 septembre. Hmm. ki le 2 septembre. le quinze septembre mu tëj. waaw intervalle lu 13 jours. Hmm. ci la def déclaration. fay itam inspection du travail jàppale ko ak inspecteur alaw ñu ñëw fexe ba usine bi tëj bi mu tëjee ñooñu daw normalement banque bi dafa waroon téye fonds de roulement bi ak fonds de commerce bi pour ñu mën ci fay personnel bi mais nag loolu amul dañ ko bàyyi mu dem ak alalam léegi nag patrimoine bi nga xam ne moom la fa bàyyi woon parce que bàyyi woon na fa quinze camions yu fa nekkoon ci biir usine bi ak matériel bi ñu doon liggéey ak ay chambre froide ak salle de machine yooyu yëpp biñ ko évaluer deux milliards quatre cent millions la mais nag port moo dikk détruire place ba parce que foofu nguur gee moomoon suuf si. léegi deux milliards yooyu anam. ñun bi ñu koy détruire xëy xëy rek fekk ñu toj daaneel miir yàgg yi lépp léegi nag port ñu war a wax suñu matériel parce que patrimoine bi état moomu ko usine bi moomu ko moom la pour boobu pour mën a liquider personnel bi fay mais matériel boobu port fu ko dugal loolu xam. est-ce que dem ngeen directeur naa ko deux fois pour demander ko audience mais yàlla def na mënu ma ko am finalement ñi ma doon àndal it ñuy jàpp ci combat bi am ci ñoo xam ne dañoo dem ba mujj tàyyeel boo gisee nag ma ñëw ci rajo bi tey pour waxtaan ci dama bëgg nag état bi bu fekkee ñi ñu dégg wala ku jege état bi ku ko dégg nañ ñu dimbali woo ñu ñu waxtaan ak ñoom suñu cas ni mu demee réellement parce que ñun xeexuñu marchuñu tànnuñu xeer tojuñu defuñu dara dañuy demander ndimbal état nag moo ñu mën a dimbali ñu ngi koy ñaan mu dimbali ñu te yàlla tax kon daal yéen fi mu nekk nii état la ngeen di waxal bëgg mu bàyyi leen xel pour seen bor yooyu nga xam ne ameel nañ leen ko ñu fay leen ko ku ne mën a daal di dem si jàmm ak salaam bala fee ñeneen ñee jóge waaw loolu daal lañ bëgg parce que ñi ngi magal ñi ngi dee rek comme nag léegi li fi desekat néew ñi dee itam seen njaboot a ngi fi hmm. ci la ñu bokk hmm. ñoom luñ ci amit dañ leen woo seen njaboot jox leen ñun daal état daal na laaj port bi suñu patrimoine boobu fu mu ko dugal ak nu mu ko def ñun la fa nekkoon lépp xam nañ ko mi ngi noonu ma jigéen doonte ne élément bi des na waaye waxtu yi moo des ñaari minute te xam naa ni jombul euh, ñu dikk ci rek sinon euh, subaa ngi fi waaye daal am na góor gi lu muy sàkk loo xam ne depuis 87 mm-hmm. la ba léegi. voilà matériel yi fa nekkoon xam naa. vraiment ñàkkul nu moom la ñuy laaj. mais bon de toute façon comme que wax na rek nañ ko bàyyi xel et que tamit nit moom boo ko xeebalee jàngoroom rek mooy defoo li la war. waaw Ndiob. metti na de vraiment parce <laughs> waa ji dem na waaye waccoon na fi loo xamante ni bii euh, buñ ko jaayoon defe naa ni mënoon na leen a am lu mu leen jariñ dëgg la mais nag loolu nag ci boppam nga xam ni gisuñu ko uh-huh. te loolu mooy li nga xamante ni bii moom la ñuy ñoom moom la ñuy lijjanti loolu fan la dugg uh-huh. ah, loolu nag quatre-vingt-sept la de ah quatre-vingt-sept waaw ba nëgëni waaw naa di moom fi mu toll nii ma ak nguur yi jaxasoo yi senegal gi uh-huh. kii ñëw kële ñëw kii ñëw kële ñëw xam naa ni moom am na ñoo xam ne sax fi mu toll nii affaire ba tiitale am na ñu ko lekkoon ba defee ne rees na ndekete rees agut waaw <laughs> ah, dëgg <laughs> am na am na ku toog de i bi élément bi di jàll ndeysaan waaw ah, dina am koo xam ne ni lay na koo xam ne ni ndeysaan yàlla bu ko kenn dégg parce que moom lekk na ko naanee na ko njar bu yàgg non am na koo xam ne ndeysaan boo dee ah. bàyyi ma nekkoon ca yëf yi fi moo desee yëf yi nag la woon kii yi fi toll nii de xam naa ne élément bi moom yëngal na am na am na am na kër yu mu yëngal. mais alaaji sax dañ ciy dikkaat sax. waaw incha allah ci des na sax dañ ciy dikkaat waxtu waa ni may ba pare tey mbàkk fay waaw waaw waaw alaaji waaw. waaw kii la naan nay leer waa Afia la. waa kii Afia. Afia kii nañ ko jiiñ booyu new doole yooyu. Afia <laughs> ñu fontoor seen rajo bi nañ ko réglé. dañ tuumaal ñooñu Afia. Afia la amuñu doole Afia. Afia FM aywa jërëjëf El Hadj kon ba suba. incha allah ñu ngi nuyu waa bu baax a baax nuyuwaale Penda Ngane Sougou ma nekk foofu le madame la directrice maa ngi lay nuyu bu baaxa baax soxna Penda Ngane. aywa mbokk mi ngi noonu euh, ñu ngi jégalu lenn ci zone yi nag euh, ci biir dakaar am na ñuy signaler que ni dafay def foofu euh, xam nga ay interférence noonu ak ay benn fréquence mi ngi noonu nag melo dikk na nag ñun ñoom ñu ngi dem. melo moom dikk na ñun ñu ngi dem ba subaak jàmm incha allah mbokk yi jox nañ leen dig daje bu ñu nee diis rek après brève moom mooy ñëw moom melo ànd ak yéen ba 12 heures incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.